compétent mais li ngay wax dafa mel ni juge yi xamuñu ko te juge yi xam nañ ne lay demee. nii la ñuy defee inscription yi. waaw mais moom laa lay expliqué. ñu réintégrer ko. ci liste yi parce que jàpp nañu ni ñu ko ci dindee du yoon. pour ñu mën ko réintégrer. Mhm. pour ñu mën ko réintégrer il faut commission amaat. waaw mais mais y loi électorale. mais mais fan ngay teg l' article L47 du code électoral yow yaa fi tudd code électoral yi. côté article L47 bi wax ne les décisions de justice s'appliquent immédiatement est-ce que li nga xam ne moom moo tukkee te loolu ñu seen xam-xam màcc non si article l bi waxul loolu rek comme tout à l'heure li nga lii rek mais en li ñu a comprendre vous non c'est 38 pages vous avez lu quand même benn page à la article bi du loolu rek mais si loolu la wax les décisions de justice s'appliquent immédiatement par l'autorité compétente kan mooy autorité compétente le préfet préfet mais la décision a été prise. signifiée au préfet. la tribunal d'instance de Ziguinchor. Uh-huh. après sa décision fan la ko du préfet. est-ce que décision bi waru ko DG waru ko mieux encore. le tribunal d'instance de Dakar. génne ah, décret parce que sa révision exceptionnelle boobu ngay wax. dégg naa nga la deuxième fois. mais est-ce que dans ce cas. on peut parler de révision exceptionnelle est que la loi électorale est là aussi. non non non si bul bul uh-huh. ñi ñuy seetaan. Hmm. dañ lay déglu yow L 45 boobu nga mhm. wax. 47 47. oui dama ni da nga ni les décisions de justice. s'appliquent s'appliquent oui immédiatement immédiatement. Mm -hmm. par l'autorité compétente. oui l'autorité compétente pour l'inscription ci fichier bi préfet la. loolu moo tax juge Ziguinchor bi. ba mu kii euh, bañ kiiyee ñoom ñu daw jëm jox ko préfet xam nañ ni préfet la de. yow Mame Mbaye nga jàpp na yow yaa gën a mën a interpréter ces décisions que la Sénat que certains juristes et même des experts électoraux. Sénat yoonam nekku ci. ah si il ah, la Sénat elle a plutôt. dafa joxe injonction DGE pour mu jox Ousmane Sonko ses fiches de parrainage. non non xam nga Sénat amul mooy injonction bu muy joxe. ah pourtant elle l'a fait xaaral c'est que ku nekk da xam say prérogatives. xam nga micro pour wax la télécommande bi pour taal clim la télécommande bee pour wàññi télé la. noonu la mbir di doxee kuréel bu nekk dafa am loo sañ. loo mën ak lu la yoon tënk mais processus électoral bi. mais moom laa lay wax Sénat daf ci nekk du début à la fin. boo dégloo Sénat partie intégrante la ci processus bi ak ci organisation élection yi. supervision mooy la mais aussi ak li ñu def injonction bi ñu jox DGE. du début à la fin moo tax ma ni la amuñu. amuñu si am nañ sañ-sañ ñoom mun nañ sax jox waa waa kii mu parrain fiche de parrainage aux avocats d'Ousmane Sonko wax loolu soxna si uh-huh. keneen ku xam bu ko dégloo après boo waxatee day day jeex jeexi jaax li ma lay wax nii mm-hmm. armox la mm-hmm. nee naa la d'accord na article L47 bi mu wax mais li mu comprendre lul mooy est l'autorité compétente pour mm-hmm. inscription ci fichier bi c'est le préfet Mame Mbaye Niang kon lenn rek mooy li nga xam ne mu ngi koy sàkku ci Ousmane sonk muy nag li mu ko tuumaal toog askan yëpp jàkkaarloo ak moom mu ne moom mi leen mbirum Prodac vingt neuf milliards taxee na ci na ko leeral loolee dong mooy lu muy sàkku donte la sax ci tribunal bu Ndakaaru première instance daan nañu leader bu Pastef deux mois de prison avec sursis deux cent millions d'amende d'appel daal di ñëw gën a diisal mbir ma six mois de prison avec sursis deux cent millions dommages et intérêts ngeen baal wuti ak amande yu mu war a dàmpee kii di Mame Mbaye Niang dontale sax moom leader bu Pastef nee na nag kii du laal dërëm yoo xam ne moom mi dana ko ko jox Cour suprême nag war a ci mbir mi niki le 4 janvier loolee nag ndax dina ant wala déet bu nu déggee rek li la ñuy duppee euh, exception d'inconstitutionnalité boo xam ne défense Ousmane Sonko yaay avocat am dal nañu ko dugal kon nag mu mel ni rek bu nu sukkandikoo ci ñi seen xam-xam màcc ci wàll wi cour suprême la nga xam ne rek moom la yoon gàll ci ndodam mooy nag ci lu nu mu daal di cay saisir conseil constitutionnel conseil constitutionnel googee su ko boobaa rek mu am diir bu toll ci weer ngir tontu ci lu nu mel addu ca laata cour suprême nag di mën a wax ci dossier bu nu mel kon des xaarandi nag ba xam ni ki le 4 janvier boobee dossier bu nu mel ci cour suprême danañu ko fa daal di àtte wala déet waaye daal bu nu sukkandikoo te ñenn ñu seen xam-xam maa ci jëm ci wàllu yoon moo di ne rek exception d'inconstitutionnalité bi nga xam ne nag ay avocat Ousmane Sonko euh, teg na nañu ko ci table ji foofu ci conseil constitutionnel su cour suprême la rek moo di ne la muy jur rek wala la am comme conséquence moo di cour suprême googee du mën a àddu ci mbir mu ni mel moom ba ñaan ak moom jàpp na ne rek kii Ousmane Sonko daf kaa tuumaal te mënu mu ni mel fayanu leer xuloo bi sax xaw naa jóg digganteem ak ki nga xamante ni moo di journaliste bi ndax nag ñoom ñi lañu koy wax rek moo di mbir mi la daal su fekkonte ne raxas lan moo ci jaar ba ñu daanee Ousmane Sonko deux mois de prison avec sursis ak deux millions d'amende nga daal di appel ci cour ngir ñu yokk lu du mel xanaa jógoon ren rek ngir raxas li nga xam ne moo di rek da ngaa jógoon ngir Sénégal xam ne kii nii lay wax noonu ne amutee daf la tuumal loo xam ne wute lool ak li nga xam ne moo am lu jëm ci mbir Ousmane Sonko radiation ci liste électorale ak delloo ci turam décision bi nga xam ne kon jug na jugee ci justice bu Sénégal juge bi di Samba Sy Faye décision ba mu jëndoon annulé radiation Ousmane Sonko ci liste électorale yi naka noone ordonné réintégration ci liste yu ni loolu nag administration bu Sénégal mel ni ba tey jëlee lank ba tëdd ci suuf ne du ci àddu ndax rek état bu Sénégal na mu ko defee woon pour banque cassation ba cour suprême cassé annulé lu nu mel yóbbu ko ci tribunal bu Ndakaaru juste Ousmane Racine Thion daal di def lu nu mel moom tamit rek atiwaat dossier ba daal di joxaat dëgg Ousmane Sonko annulé radiation ci liste électorale yi ba noppi rek ordonné li nga xam ne moo di réintégration ci liste yooyee moom nag ba tey administration bu Sénégal rawatina direction générale des élections lànk ba tëdd ci suuf ne Ousmane Sonko jox fiche de parrainage ndantale rek Cour suprême adduwaatul ci mbir mi ba mu leer Cour suprême googee sax niki démb ñu ñuy xamal ci xibaar ne agent judiciaire de l'État de Yoro Moussa Diallo daal dina leen di saisir ci benn pourvoi en cassation ngir nag annulation décision bi nga xam ne Ousmane Racine Thione président tribunal d'instance bu Dakar daal dina koy jël ngir nag réintégration Ousmane Sonko gannaaw bu mu annulé radiation ci li nga xam ne moo di liste électorale yu mel moom Mame Mbaye Niang ba tëdd ci suuf nag ne mbir mu ni mel mën a gunu caa addu ndax dossier ba jeexagul war naa dem ca cour suprême lu jëm ci réintégration ci liste électorale nag mu ne di code bi wax dafa leer muy que ne autorité compétente yi ñoo ko war a réintégré ci liste électorale yu ni loole sax waral wéccoo yi kàddu jàppante xuloo jàppal bàyyil ci ay kàddu ci werante ci wax d'accord ma ci li nga wax am ci digganteem ak journaliste bi ca plateau ba nga xam ne moom la ñu ko dalaloon foofu ca Sen TV des xaarandi rek kon fan la warante di mujjee ak gëtam jamono boobee nag fa ñu fàttali leen ne moom mii di Ousmane Sonko leader bu Pastef daal dinay déposé rek li nga xam ne moo di candidature am foofu ca conseil constitutionnel dontale sax fële ci direction générale des élections nangu nanguwunu koo jox li nga xam ne rek moo di fiche de parrainage yi nga xam ne candidat yi yëpp soxla nañ ko ngir collecté ay parrainage yu ñu yóbbal foofee ndax loolee dana nekk dossier bu incomplet wala na conseil constitutionnel dina ne rek kii Ousmane Sonko su amul fiche de parrainage rek dafa fekk na administration Sénégal moo ko ko xeeñ waaye moom mi ne def na kéem kàttanam ngir jot ci lu nu mel kon nag dossier bu incomplet rek du moom la ñu mën a teg toor bi wala déet wala def naan rek dossier bi matul kon matul des xaarandi fan la warante mu mujjeeki gëtam ak ban décision la ci conseil constitutionnel di jël jërë ngeen jëf mbokk yi di mu doon xibaar ci bile vidéo yeneen xibaar rek ci yeneen vidéo lay doon bu ci laandee wala tollalee di like di abonné ci ku dee gan ci page te abonné go ñoo ngi leen ñaan nga abonné activé sa cloche defee lu dugal ci vidéo nga bokk koy njëkk a jot cant ak ngërëm ñoon na leen 14 régions du Sénégal fale mënte ne jërë ngeen jëf diaspora bi kenn demul des yeneen xibaar ci yeneen vidéo bu ci àlande